nekk nañ leneen loo xamee ni euh, mooy genre appel du pied euh, neneen nag euh, boo leen di tànn nag xool leen ma xool leen suñu réew ñun réewum Sénégal bokk ci Afrique mooy réew boo xamee ni d'accord nañu ci wàlluk démocratie am na ay jéego yu ñu def mm-hmm. tey suñu réew man ma jiite ko di Macky Sall ñu ngi won àdduna ni yem ci la ñu jox ci wàlluk mandat mën mm-hmm. naa ne d'accordu ma ci euh, ñuy foq ci euh, réew ci euh, ay coup d'état ak yooyu ndax wax na ko donc yooyu yëpp muy wane benn xar kanamu Sénégal xar kanamu Afrique une Afrique boo xamee ni li ñu wooyee lu lu rafet possible na ak réewum Sénégal kon mën nañu kon jort également parce que ñu bari ñu ngi koy wax na ni mais écoute bu Macky Sall jógee ci boppu réew mi en tant que président yeneen opportunité mu ngi jàkkaarloog moom. rawatina foofu mu jóge wala foofu mu nekk ci Nations Unies ne leen mais euh, ay la yoon war naa mën a doon tey secrétaire général Nations Unies le prochain en tout cas parce que am na benn xeetu accord boo xam ne dafa am ci àdduna ñu ne ni bu ñu jógee ci euh, benn dëkku Europe wala euh, dëkk bu am doole. bu jiitee Nations Unies benn ñaari yoon ñetteel bi mën nañ ko jox. Euh, koo xamee ni réew yu euh, néew doole la ñuy wax mm-hmm. ku ci mel ni Kofi Annan joxoon nañ ko fi ku ci mel ni Boutros Ghali joxoon nañ ko fi mm-hmm. yooyu yëpp doon ay réew yoo xam ni Ghana Égypte ak yooyu mel pour wane ni war nañu mën a jox réew euh, li nga xam ni moom mooy Nations Unies mm-hmm. ak pencu mbootaayu xeet yi secrétaire général bi doon koo xamee ni si suñuy réew lay jógee di réew Afrique pourquoi pas Euh, réew Sénégal ak mhm. euh, président Macky Sall loolu njort la ci ñoo xamee ni jàpp nañu ni am na euh, yeneen i opportunité au plan international mhm. te da koy permettre permettre Afrique permettre Sénégal comme ni mu ko defee mhm. ci lu soxal mbirub G20 il s'est battu pour que Afrique même bu dee dañ jàpp ni euh, dëgëralaayam dëgërlaayam demoon noonu mais Afrique bokk ci G20. Mhm. alors que dañ leen doon invité kese ñuy ñëw di fekk yenn ci ay sommet wu G20 mhm. waaye ñu ne léegi dañoo bokk ci table g pour mhm. pourquoi ne pas continuer tamit ñu mën a bokk ci euh, leneen yoo xamee ni euh, dafay soxal àdduna bi yëpp et c'est un peu loolu moo waral peut-être. tàggatoo bi ni ñu koy waxee c'est tout à fait normal dina dem di tàggatoo aussi ci yeneen i instance wala yeneen yi daje Union africaine bu ñu tasee peut-être ci balaa boobu. dina ñëw tàggatoo. Euh, yeneen i euh, kuréel yoo xam ne moom da ci bokk en tant que président de la République du Sénégal bu ñu dasee dafa mu ñëw tàggatoo également pour xam leen ni su ma fi ñëwaat mën naa fi ñëwaat. mais ce sera plus en tant que euh, président de la République du Sénégal. Sénégal message boobu nag foofu muy foofu it ca biir nga ko fàttali rek ne mu ngi daal di bokk ci li nga xam ne moo jëm ci session ordinaire bu assemblée générale nekk ca Nations Unies foofu ca diwaan bu New York Macky Sall ci boobam gannaaw kaddu yi nga xamante yëkkati na ko bokk na ci euh, daal di xeex ngir rek ñu jëm euh, gën a dooleel financement ci lu jëm nag ci li nga xam ne moom moo jëm ci continent bu Afrique ngir ñu mën a am li nga xam moom mooy ndox maanaam fu waay mën a lu ñuy woowee accès universel li nga xam moom mooy kon beneen ponk boo xamante ni waxtaan nañ ko sànq ñëwaat ci mm-hmm. ci kàllaamay Kocc Barma muy nag jëm ci wàllum politique mu mel ni coow li bay rek Birahim Touré waaye parce que moom kenn candidat la ñu am muy Ousmane Sonko mm-hmm. waaw euh, parti bi c' est normal. Guy Marius Sagna fàttali ñu ne tournée tournée euh, foofu ca ca Europe. waaw mu ngi ci Europe je pense mu ngi ci France actuellement mais c' est c' est c' est normal. Mm-hmm. que parti politique ne ni ñun benn candidat la ñu am. am ñu plan B ni beneen plan kii mooy suñu candidat. PDS loolu la ñu yàgg wax na ni Karim mooy seen plan A mooy seen plan Z. looloo indi 2019 parti démocratique sénégalais bokkul ci élection parce que dañu écarté li nga xam ne moom mooy candidature kii di euh, euh, Karim Wade. APR hmm. bii ñoom ñëpp maire yeeg député yeeg ñoom ñëpp lu ñu wax mooy ni. kii mooy suñu candidat 2024 di Macky Sall amul plan B amul beneen candidat mooy suñu candidat. moom moo ñëw ne ni bokkuma ci élection yi nañu wut candidat boo xam ni dafay dem taxawal APR taxawal benn mbokk yaakaar moo waral coow lii bëri ñu naan Amadou Ba ba ñu tànn Amadou baax ñeneen ñi ñii d'accord ñi bañ a d'accord mais ñoom mosuñoo am plan beneen budul plan A boobu di Macky Sall. Pastef tamit ay la yoon mënuñoo am beneen plan wala waruñoo génne beneen plan budul plan A boobu ñu am muy Ousmane Sonko mais léegi li ci des mooy comme ni. Euh, Ousmane euh, ni euh, Macky Sall nee ni bokkuma mhm. Ousmane Sonko xool ci biir nee mbir mi parce que yàgg na ko wax Pastef du man Pastef c'est projet mhm. projet bi nag ñëpp a ko ñëpp ko bokk mhm. ñëpp ñoo ci war a gis seen bopp mais ñëpp a war a défendre ce projet moom Ousmane Sonko mën na xool ak ay avocats bu ci biir ba mu leer ko ni fii nii bu ñu wutul beneen plan du ñu bokk ci élection te ñun Pastef amuñu sañ-sañu bañ a bokk ci élection amuñu sañ-sañu bañ a wuut wala wuute élection parce que mbir mi du ñun dafa am ñu ñu gëm projet bi am ñu gëm euh, li nga xam ne moom la ñuy def wala li nga xam ne moom lañ leen euh, won ne ni lii la ñu bëgg fii la ñu bëgg yóbbu réewum Sénégal c'est vrai Ousmane Sonko moom mooy faire le lance bi mm-hmm. moom mooy euh, peut-être ki ci fës mm-hmm. mais ñeneen war nañu mën a porter le projet mais jusqu'à présent c'est normal que duñu wax ni plan B am na wala plan C parce que dañuy bañ ni ñuy jàpp ni Sonko du bokk duñu mës a nangu ni Sonko du bokk duñ ko mës a nangu mhm. te ils vont se battre aussi légitimement légalement pour Sonko mën a bokk ci élection yi ñuy jëgmal 2024 mais comme li ma wax ci Ablaye Wade Karim Wade 2019 bu demee ba mu leer ni c'est impossible mu mhm. bokk parce que yoon nee na lii wala nangam nee na lii avant ñuy àgg ci wàllu parrainage wala conseil constitutionnel di dindi seen candidature wala di dindi seen seen ki ñu teg ne ni moom mooy seen candidat mhm. faw ñu xalaat plan B mhm. li ma wóor mooy ñu ngi xalaat plan B mais duñ ko wax mhm. duñ ko mës a wax parce que c'est normal duñu bëgg euh, ñi ñi ñi ànd ak Sonko wala ay militants wala ay ay sympathisants Euh, commencé di di xaddi wala dara mais ñu ngi xalaat plan B boo xamee ni peut-être ñaari nit wala ñett seen biir peut-être même Ousmane Sonko en personne mu ngi toog naan ni si jamais bokkuma kan laa war a mën a jël teg ko joxe ndigal en tant que leader. Mm-hmm. ne samay militants samay sympathisants. voté leen pour diw ba léegi diw moom man la. parce que diw moomu mais ci ñeenti weer ci ñeenti weer ñeenti weer moo des ci élection présidentielle parrainage bi également lu ci des euh, bareetul loolu Birahim bu ñu fësalee peut-être ki nga xam ne euh, moom leen na a demal ci yooyu euh, présidentielle est-ce que du am peut-être lu mu def parce que nit ñi li ñu jàpp mooy naam Ousmane Sonko peut-être changé mu am pour participer ci élection présidentielle yi bareetul mais ñenn ñi jàpp nañ ni ñoom peut-être kuy bokk lay doon ci lay doon. Mm. lay doon mais am na ñoo xamee ni. seen biir xel doon ay Pastefien nu ñu koy waxee doon ñoo xamee ni ay sympathisants Ousmane Sonko wala Pastef wala ex Pastef ñoom seen xel ñu ngi ñu ngi xam nga lu ñuy xalaat fi ñu toll nii bu dee Sonko bokkul. kan. lay wax moom mm-hmm. moom moom Ousmane Sonko kan la naan. Mm-hmm. jàppale leen diw. gis nga ba ci biir Yewwi Askan Wi. Mm-hmm. je l'ai une fois am na ñu nekk ci biir sa coalition Yewwi Askan Wi. ñu ngi dem di battre campagne actuellement parce que loolu moom mooy charte bu ñu signé woon mm-hmm. bu ñu demee élection nag koy jiitu ñeneen ñëpp ànd ak moom pour mm-hmm. deuxième tour mais actuellement ñenn ñu ngi battre campagne mm-hmm. mais ñenn ñi xamul lu ñuy njort Ousmane Sonko joxe kàddu na ni dewuma jàppale leen diw ci biir Yewwi Askan Wi pour mu doon candidat wu ñun suñu candidat parce que il faut rappeler que Pastef en tant que parti musul dem ci élection euh, directement mhm. mais ci coalition lay doon wala ci benn tour Sonko président wala yu ni mel mais pas Pastef en tant que parti mhm. donte nee nañu dañu dindi nañu parti bi mhm. Ousmane Sonko est devenu ci ci yenn yi benn citoyen sénégalais qui a le droit dale ci benn élection en tout cas jusqu'à ce que ñu ne ko yoon nee na amoo sañ-sañ dàq nañ la donte ñu ngi koy wax fi ñu toll nii. ni amul sañ-sañu bokk ci ay élection dégg nañu kàddu ministre de la justice euh, kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko euh, yàggul dara. li wóor mooy Guy Marius Sagna du mës nangu ne ni man maay plan B. kenn si ñoom du ko nangu. mais ñoom ñëpp ku ci nekk yaa ngi njott ni. bu dee Sonko demul. Bassirou Diomaye fay mu ngi ci jafe-jafe ba ñu yokkal ko ay euh, ay tuuma ci kawam pour. gën ko écarte tamit la ñu ñi jàpp ci mm-hmm. wàllu élection mais ñooñu ñëpp bu fekkee dañu écarte ñëpp il faut que mu am kenn koo xamee ni moom mooy porter le projet mm-hmm. parce que le projet Pastef c'est pas Ousmane Sonko mm-hmm. bëgg Sonko wala bañ Sonko c'est un des leaders ou le leader de l'opposition mais il s'est basé surtout ci benn projet boo xam ne da jël jox ko Sénégalais ñu bari bëgg ko ci projet bi ñu bari bëgg ko naw ko ci li mu wax ni lii la bëgg fii la bëgg yóbbu réew mi lii mooy projet lii mooy xalaatam ak yu ni mel mais c'est plus le projet moom ci boppam loolu lay wax ne ni mbir mi du Ousmane Sonko c'est le projet léegi kan mooy gàddu projet bi bu dul moom il faut que ñu xalaat keneen nag qu'on le veuille ou non parce que lu ñu bëgg ko ñu bañ ko ni ñu woowee les Sonko Sonkolé ñu bëgg ko ñu bañ ko dina am forcément benn plan B boo xam ne même bu dee plan A demul ñu teg Euh, plan B l'essentiel mooy mën a bokk ci élection 2024 te ki war a bokk ci élection bi buy dem projet lay yóbbu képp ku nekk élection présidentielle booy dem xam nga lay indi amado Ba miy dem pour Benno Bokk Yaakaar il va se baser sur le PSE wala le bilan de Macky Sall projet lay indi ne lii may sam programme keneen kuy dem programme lay indi Pastef du nit la ñuy indi ne ni diw non diw ngeen war a votel non dañ naan kii ngeen war a votel lii moo ko waral mooy programme la lay indil projet la lay indil maintenant euh, qui va euh, prendre ce projet si c'est Ousmane Sonko tant mieux bu dul Ousmane Sonko il faut nécessairement keneen